bi nga xam ni moom la ñu investir comme suñu suñu maire ici à Golf Sud donc euh, dañoo gis ni rek euh, depuis 2009 avec Benno Siggil Sénégal dañoo gis ni commune bi nga xam ni mooy commune de Golf Sud gisuñu si suñu bopp ñun ñi dëkk si commune bi notamment ñi dëkk première tranche donc buñ ku ne première tranche ne unité 4 donc ñun ñëpp xam nañu unité 4 donc bokk na ci unité yi gën a rëy ci Euh, commune bi te gisuñu suñu bopp ci lenn li nga xamante ne am na au niveau de la mairie de Golf Sud donc ci loolu nag euh, ndaw unité 4 yi muy unité sama gox ak ñi nga xam ni ñoo toog nii sama gauche ak sama droite ñu investir le président Lat Diop comme notre candidat aussi nekk vraiment la personne idéale Euh, bi nga xam ni moo la ñu yaakaar ni am ci yaakaar bu baax ni mën na do euh, jiite suñu commune bi nga xam ni mooy commune de Golf Sud bi donc bu ñu weesoo loolu euh, ñu ngi remercier bu baax président de la république ndax metti woon na lool combat bi mais jox nañu dëgg ci ba ñu choisir le président Lat Diop comme mu nekk suñu candidat muy candidat wu Benno Bokk Yaakaar donc ci kaw loolu tamit euh, ñu ngi remercier euh, monsieur le maire Alioune Sall moom it gis nañ soutien bi nga xamante ne def na ko au président Lat Diop pour lépp loo xam ne bëgg nañ ko lu jëm ci élection locale yi mu teg ci loxoom donc ñu ngi koy remercier bu baax vraiment donc di wax ni rek euh, Lat Diop xam naa après damay bàyyi sama camarade yi ñu continuer si mais li tax ñu investir ko comme notre candidat dañoo gis lépp li nga xamante ne def na ko fi muy ci wàllu social muy ci wàllu politique muy ci wàllu euh, farn bépp boo xamante ne jël nga ko lu maire war a def moom taxaw na ci muy ci wàllu jeunesse bi aussi avec l'employabilité des jeunes donc euh, loolu poussé nañu vraiment ñu choisir ko comme suñu candidat ñun tamit waa Unité 4 donc bu ñu avancé tuuti aussi donc euh, Lat nekk na nit koo xamante ne dafa am vision te ñun yaakaar naa ne jamono ji ñu toll nii ku am vision rek la ñu soxla mu mënal ñu yorol ñu suñu mairie euh, te lépp loo xamante ne population bi commune bi mu ngi koy xaar ñun ñu mën cee gis suñu bopp. ndax euh, ànd ak le président Lat Diop njëriñ la ànd ak le président ànd ak plutôt le maire Alioune Sall njëriñ la donc loolu nag moo ñu fi boole ñun ñëpp vraiment. Euh, rencontre bii ngeen gis donc di ko sargal di ko ñaaxaat di ko remercier aussi ci lépp loo xamante ne def na ko au niveau du quartier unité 4 notamment aussi dans la commune de Golf Sud en général donc euh, loolu laa bëggoon a tënk rek ci olof di remercier waat vraiment public bi nga xamante ne ñoo fi ñoo fi teew. foofu laay waxee jëfam mu ñëw fekk leen suñu biir. am fu mu leen dugal defe naa ni wax ju gàtt moo gën te am solo moo gën wax ju gudd yoo xam ne am benn jërë ngeen jëf mbokk taalibe yëpp jërë ngeen jëf sunu waajur yi waaw ñu ngi leen di sant yéen di leen wax ne déggu déglu nañ kàddu yi te dégg nañ ko wax dëgg yàlla président Lat Diop xaw loo desee ndaw ñi rek waaye ndaw ñi wàccoon nañoo yow ndax lii ñu wax fii doy nam xel te doy na xalaat ndax tey mën naa ne la ba ma dëkkee ci gox bi ba léegi sa première fois ñu gis ma ci lu mel nii lenn na ko waral nag dama amut lenn lu dul njaboot gi ndax ñii taxaw ay jeunes lañ bëgg lu baax te di ci dox te di ci wax musuma leen a gis ci lenn loo xam ne nii lu nuy mànkil seen bopp la kon tax na bu mu duggee ci lii wax dëgg yàlla suñ ma wooy ma fekk si leen ci di wax ne ndaw yi unité 4 yëpp am na ci ñoo xamee nii mënoon na maa toog lim seen i turam xamal leen ne Lat Diop moo jël ay teraanga moo jël ay ndombal tànk takkal leen ko ngir ñu liggéey jariñ seen i wayjur te loolu rek la ñuy doyee ñoom politiciens yi Lat nag wax dëgg yàlla ak mbaaxam du tey laa ko xam ndax man lii may wax caméra ma tiim te fu nekk lañ koy yóbbu daaru salaam laa dëkk maam si xantaay sama maam kon jàpp naa ne dara lu may taxa wax lu ma gëmut amul ci àdduna déedéet ndax bu dee teraanga sunu maam jox nañu ko ba mat sëkk waaye damay wax ne man sëriñ daam mbàkke wallahi walhasim laxasaayu naa takku àndandoo gone yi ngeen falaat Lat Diop ngir si moom seen bët bët rek te lii ma wax waxuma ko ngir jël waxuma ko ngir bànneex ndax sa ñëpp laat mu baax mu mag ma da daan wax ne ñett ñaar a am booy wax nit ngir bëgg am la wala ngir ragal ko te ñaar yëpp nekkul ci man kon nan leen àndandoo comme ni ko sunu yaay yi waxee ak sunu mag yi ak sunu rakk yi waxee ñun ñëpp rek ñu àndandoo dooloo doon wennu say ngir falaat ko ci mairie bii ndax man am naa ci yaqin ne wallahi lépp lu nuy jooy fii nii ak feneen sun ko falee suñ borom dana ko saafara ndax fullaam mate na ko faydaam mate na ko dignité mate na ko moom président Lat Diop ndax sëñ Abdou Lahat lañ ko tuddee ma xam ko bu baax a baax a baax nag man naa ne la xamantu ma ko dama koo xam xam naa ci moom fulla xam naa ci moom dignité xam naa ci moom personnalité boo gisee samay jéegu ma ñëw toog fii taxaw am sañ-sañum jëlum micro di wax ci moom fullaam ak faydaam ak digniteem moo tax ma ma sañ ko président Lat Diop maa ngi lay gën a dénkaat la ma la waxoon rek ba ma ta ba ma dajeeg yow fii ndaw ñi fi ne ak ñi fi nekkul lépp loo mën a gestu ci ñoom ngir taxawu leen def ko te xam ne mooy sa njariñul fii mooy sa njariñul fa la ñu jëm ndax kenn ku ci ne xam na ne am nga ko te man nga ko te wax dëgg yàlla yaa ngi ci yoon kon nag góorgóorlu ci ndaw ñi te fas yéene ci liggéeyal yàlla te xam ne ñoom loolu rek nga leen mënal ndax ñoom leen la mënal bari na mënaan lan laa xëyal mënaan lan laa gontal mënaan lan laa defal lu ne waaye dama laa ñaan rek yow ci sa ci sa ci sa mbaax nga wëlbati ko rek gesuwaatal ma xale yi ngir li ñu amutum xëy ñu am ko di sant bu baax sama mbokki Baay fan yi wax dëgg yàlla bu ma limee damay juum moom laay wax waale léegi nii ne ko bëggumaa jël kàddu ndax damaa boole njaboot yi ñëpp kon nag bu ma jëlee nuyoo bi ak ziar bi teg ko ci jëwrin Moustapha ak waali sama xarit ndax tamit Euh, feejum daan ne olof dane feccum lii su neexee nday jaatee ca wagga ya man su ma demee ba gën a jaxasoo Lat Joor grâce ka Waly Sène mii kon nag bu ma taxawee ci bis bu mel nii di wax danaa ko seede di sant ñëpp tey gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah